góor ñaag jigéen ñaange raj-raj loo di dem poroxaan ngir te màggalu sun maam jaara moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine yàlla moytu safaan moo fonk ndam lii ci sellal jëf baam jërëjëf jëfam juréy jee waral xéewal gi fi wala ngaan xéewal gi mooy moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga niil kii jam na moo juboo saan xéewal gi mooy ahmadul xaddiimi moo nu ko mooy ndam lu yelloo nga neel kii jam na moo jubu saas mooy jaaratullaahi tur ak njëgam wooya ful njëg laa bi muñ fi du rëy tawfiix ju mat ak ñaan ba ma badaanoo ba nit ñi ñëpp wéet na na xam ak wéetalam yàlla moo tax wéetalul poroxaan taarloo na yar bu rafet ak ngën jukko ju xay ak jàppe adduna am póotiit du juum di ko naan dundam ga fàggul na waa réew nii njariñ lu amul baxdaat amul faas amul tumbuktu géej du siyaan waa juréyit nekk doomi daara dund ci ngor ak diine ak dunda séenu ñàkk jàng quraan alxuraan ñaar ñii ko meññ ku ñam seen caf ko xam ne sa fuñ lu dul la fa yàlla ak taaxa ji yeneen daaraa ko jur yar ko duy ko wiiw mu fay ko borom andil ko jàmbaar judul jàmbat ju mat ilimaan daaraa ko jur yar ko duy ko wiiw mu fay ko borom andil ko jàmbaar judul jàmbat jumat ilimaan fa bon na tànnee fi moo melam Maam jaar bu Touba Espagne ñoo toog fii nii di fas yéene jëbal seenub liggéey ma bëgg leeral li nga xamante ni mooy daayira yi nga xamante ni ñoo bokk fas yéene indi fii seenub liggéey muy waa Touba Madrid ci njiital sëriñ soxna maam Naar Kan waa Touba Valencia ci njiital soxna Ngoy Njaay waa Touba Gandia ci njiital soxna Mari Mbay ak soxna Aram Ñang waa Touba Salaw ci ndiital soxna Daba Mbacke waa Touba Saragossa ci njiital soxna Dieye waa Touba Murcia ci njiital soxna Ayda Sow waa Touba Pamplona ci njiital soxna Ndey faatu Gueye waa Touba Sevilla ci soxna Seynabu Jànqe waa Touba Torobiexa ci soxna Yacine Gassama waa Touba Menorca ci soxna Ndey Ndumbe Seck waa Touba Kalpe ci soxna Kinne Seen waa Touba Pamplona ci Adja Njëmbu Ndiaye waa Almeria ci soxna Kam Saar Gueye waa Touba Granada ci euh, soxna Serigne Bassirou Diop moo yónnee seenub liggéey waa Touba Rewis soxna Kumba Diop waa Touba Barcelone ci soxna faatu Mbacké muy fukki dëkk ñoo ndaam waaw kon fukki dëkk ak juróom-benn ñoo dajee ci biir Espagne takk seenu liggéey daf ko wenu say bëgg koo jébal sëriñ bi bëgg koo jébal sëriñ bi kon ci njiital soxna maam Naar Kan mi nga xamante ni mooy présidente fédération jigéen bi ànd ak ki topp ci ginnaawam di soxna Ngoy Ndiaye ak trésorière bi di soxna Ndate Ndiaye soxna euh, soxna ña Aram Ñang ñoo fi teew nii ak mbooloo mi ñu àndal nii yëpp. ànd ko góor ñi nga xamante ni ñoo bokk ci daayira sëriñ Touba yi ci seen njiit di sëriñ mortam Tambi du mi doon nuyoo léegi kon seenub liggéey euh, toloon na daaw ci ci ci juróom-ñetti million yàlla def na ren. liggéey bi yokk na ba indi nañu ba fas yéene jébbale seen àddiya nekk ci fukki million daaw amoon nañu fukki maam jaara ak juróom benn ren yàlla def na xaalisu fukki maam jaara ak juróom ñetti yoo xamante ñoo leen fas yéene dundal teew na fii waa Palma ma Mallorca juróomi maam jaara lañ joxe woon daaw ren fas yéene nañoo joxe juróom benn ñetti ñetti maam jaara lañ indeegun seen xaalis fas nañ yéene suba ñu indi yeneen ñett yi ci des suñ ko indee fekk si fukk ak juróom-ñett yi ñu am fii nii mu nekk ñaar fukki maam jaara ak benn yoo xamante ni waa Espagne ñoo leen fas yéene dundal ci at mi waaw waaw Isla Canarias ci njiital Serigne ki Diop ah sa Serigne Assane Diop indi nañu ak a Hadj Abdou Ndiaye indi nañu seenub liggéey ci ñaar fukki di ñaar fukki maam jaar ak ñett kon Espagne bu ñu ko boolee ñaar fukki yooyu ak ñett fekk seen ñaar fukki ak benn Espagne dañuy am ñeent fukki maam jaar ak. ñeent yoo xam ne ñoo leen dundal la fas nañu yéene barkeeloo ci liggéeyu poroxaan bi tamit ci jumaa ja ñeent fukki junni di cent mille francs moom la ñu yor fii ni fas yéene ko barkeeloo kon kon soxna maam naar ñu jox sëñ Aadi Touré mi nga xamante ni moo jógee Pamplona mu yor seenub kànt Palma Palma de Mallorca wax baax na jërëjëf. lii mooy addi jundi maam jaare yi mu ñaan lim bi maam jaara 4 millions 304 ak juróom benn fukk ak juróom ñett téeméer bisimilah. addi daayira fukki millions yi. lii lan la. mooy li wa rahmatullahi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. di la siyaara di la ñaanal wér ak yàgg ak jàmm ak xéewal ak ngërëmal Serigne Touba di la nuyu di la turu Serigne Sidi Maxtaar ak njabootu Xaadim Rasul gépp di nuyu suñu sëriñ bu baax bii suñu jëwrin Serigne Isaaxa sa rakk ji nga xam ne fu liggéey bi àgg moom la ànd kook doom yu baax yi sëñ Cheikh Abdou Latif ak sëriñ Abdou ak njaboot gi yëpp waaye loolu yëpp nag ñi ngi ko ànd ci njiitul sunu soxna yi ñu àndal muy soxna naar maam naar kan di doom ci ñii di rakk ci ñii ñenn ñii seenu maas jiita luñ ko ne ndax moo fi mag wala dafa ëpp xam-xam wala dara ay ndeyam ak i magam ak i moroomam ñoo ko tànn jiital ko jiital googu ñu ko jiital nag da koo ànd ak lim bi sëñ Basiiru wax léegi kon ñi nga xam ne bii ne ñoo ànd teew fi yëpp ak daayira yi nga xam ne bii ne ñoo nekk Espagne te war a ànd si fii ci fédération bi ngir bokk liggéeyal maam jaara bokk tamit noppal sa jëmmu ji ndax jataay bu mel nii xam nañ ne metti na kon buñ la ko bëggoon a yëkkati ci bis fukki yoon ak juróom benn loolu tiis na ci ñoom waaye ci ndigalul sëriñ Isaaxa ci lañ àndoo def fédération bi ren la ci ñetti at ñi ngi ñaan nag daayira yi nekk Espagne ak àddina bi yëpp ñu booloo di liggéeyal maam jaara di fabandoo di dóorandoo di ñaanit liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéeyal soxna si nga tegal ñu ko ci loxol soxna si mu tegal ñu ko ci loxol xaadimul Moustapha ci teg ko ci loxol yonent bi ak sunu borom te ñu ànd kook yow ñu ngi ñaanit nga yàgg lool te wér liggéey yi nga xam ne it moom nga sumb sumbal ko Serigne Touba ak soxna si lépp àgg ci sol kanam coleet nga yàgg ci lool ak ñun ñëpp jafe-jafe yi nga xam ne bii nii waxoon nañ ko mooy nu ñuy def rek ba mboolem daayira yi nekk Espagne booloo nekk benn bokk liggéey di tegandoo di yëkkatandoo di tegandoo ci benn ndigal ci benn fédération ñoom tamit ñu leen di dolli na leen nañu góorgóorlu bu baax jiite taxut na yaa gën wala yaa ëpp xam-xam. wala yaa ëpp sañ-sañ tool bu ne rek dafa am jëwrin ñu booloo ñoom di ay jëwrin tànn soxna maam naar mi ak soxna Ngoy Njaay ngi topp ci ñoom ñuy seeni jëwrin tañ sawar lool sawar ci liggéey bi di ci ay jàmbaar at mu nekk lu ñu indi ñuy ñaan mu jëm ca kanam waaye di ñaan ñu yàgg la fekk nga ànd ak wér ak tal ci barke Serigne Touba bu loolu jàlleet daayira Serigne Touba yi nekk Espagne di fédération Serigne Touba bi ak fédération Minanul Baaxil Xadim yëpp ñu ngi ñaane ñoom ñu dugg ci biir ñaan googu àndandoo liggéeyal Serigne Touba ci seen kanam njiit yi ku mel ne sëñ moor Tambédou ak njiiti daayira yi ñu àndal yëpp ñoom it duma leen ko nëbb buñ mënee lii seeni borom kër ak njiiti daayira yi ñoo leen ci jàppale ndax jigéen lu def te defu ko ci ndigalul borom këram rawatina Europe ak xat-xat yeeg jafe-jafe yi kon bu ñu dee fàttaliku soxna si bëgg lu baax la lu baax loolu ñu bëgg nag ñi ngi ñaan nga ñaanal leen ci bañ am ci lu kawe suñ njort ñun ñëpp réew mii ñu nekk ak ma ñu jublu yëpp na xéewal yi baawaan buñ fi jógee daal ku ñu xool rek na nga ànd ak yokkute ci barke maam jaara été bii ñu jublu yit ak nawet bii ñu jublu yit na nekk bu barkeel ak été bu neex ànd ak xéewal yu bari góor ñeeg jigéen ñi mag ñee ndaw ñëpp ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm fas nañ yéene it ñu fi jógee bu ëllëgee danañ dem ci sëñ Sidi Maxtaar siyaare ko euh, jébbal ko addiyaam ci turu soxna maam naar ak soxna yi mu àndal soxna yi nag buñ ko doon lim dañ naan lii asaka la ci li waroon a teew ñu ne ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ñëpp kenn ku nekk amoon na yéene ñëwal sa bopp kenn ku nekk it amoon na yéene jëf lu tool ni lii ñu fi bokk def kon ñu ngi ñaan fekkaat la fi ak déwén ak jàmm nga wér bu baax ci barke Serigne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. maa bëgg a leeral sëñ bi rek ne ko ci lu jëm ci eh, ndey daara yi ñoom mën naa ne ñoo ko jëkkee ba nag ni nag kenn mënu leen ci ndax bu fekkee ne daanaka bu ñu boolee ñaar yëpp dana mat eh, ñeent fukki nit ak nangam nga xam ne kon moom daayira yëpp ñoo ci jiitu. waaye nag loolu it du bett ndax ñoo ko sos ci ñoom la tàmbalee kon nag loolu rek laa ci bëggoon a seere. waaw ma dolli ci waat ci di jottali nuyoo Serigne Bassirou Diop mi nga xamante ni doom la ci kër gi di taalibe ci kër gi ca xam ni lépp luñ fi yendoo def tey jii nii nëgë ni daaw moo fi nekkoon di ko def yéeneem ak xelam ak xalaatam yëpp sëñ bi mi ngi fii ci sawet mi ngi teew fii ci suñu biir nekku fi waaye boobu ba léegi mi ngi wootee di laaj mbir mi fu mu toll ak fu mu yegg ñu bëgg nga ñaanal ko yàlla may ko xéewal dolli ko sutura ba mu mën a ñëw ci senegal ñëw fii nii siyaare si comme ñun nii ñu ko def ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum sëñ bi ne taala wa barakatu wa rahmatullahi eh, yi fi teew yéen bokk yi fi teew bokki taalibe yu ràññiku bokki taalibe yi fi ràññiku di bokki taalibe yu ràññiku di bokki taalibe yu ràññiku yëg nañ leen bu baax a baax a baax. yëg nañ leen bu baax a baax a baax. xam nañ ne yéene ji sell na. xam nañ ni yéene ji sel na. xam nañ ni pësteef bi wér na. xam nañ ni pësteef bi wér na. xam nañ ni yitte ji mat na. xam nañ ni yitte ji mat na. loolu nag mooy jumtukaayu taalibe bu bëgg a bi. loolu nag mooy jumtukaayu taalibe bu bëgg liggéeyal sëriñ bi. loolu gis nañ ko ci yéen bu baax loolu gis nañ ko ci yéen bu baax a baax. ñoo ngi ñaan mat leen seere ci fa borom liggéey bi rek. ñoo ngi ñaan mat leen seere ci borom liggéey bi rek. liggéey bi rëy na lool. liggéey bi rëy na lool. yitte ji moom mënees na cee teg bët. yitte ji moom manis na cee teg bët. mu yéeme lool nag. mu yéeme lool. ndax ko tàmbalee. ndax fa ngeen ko tàmbalee. baag si ci seen jataay bii. baag si ci seen jataay bii. yitte ju rëy rëy la. yitte ju rëy jafe la. yitte it ju jafe la. suñu borom lu mu yombal mu yomb. waaye suñu borom lu mu yombal mu yomb. tawféexi sëriñ bi jim leen may. tawféexi sëriñ bi jim leen may. moo leen ko yombalal. moo leen ko yombalal. waaye mën na leen a yombalal li ci des lépp. waaye mën na leen a yombalal li ci des lépp. seen xel di ci am ci xeeti aajo. seen xel di ci dal ci xeeti aajo. seen di ci dem. seen xel di ci dem. ci xeeti aajo. ci xeeti lépp lu ngeen aajowoo. ci xeeti lépp lu ngeen aajowoo. loolu tawfeex ji mën naa def mën naa mën naa yéwénal lépp. loolu tawfeex ji mën naa yéwénal lépp. ni mu leen yéwénalee jéego yi ngeen jógee. nii mu leen yéwénalee jéego yii ngeen jéggi. ndax yitte ju nekk ci ñoom ci yéen. ndax yitte ju nekk ci yéen. ngeen nekk ci loolu ba ci seen jotaay bii. ngeen nekk ci loolu ba ci seen jotaay bii. tawfeex rek tax mu yomb leen. loolu tawfeex rek tax mu yomb leen. waaye alhamdulilah rabil aalamiin. waaye alhamdulilah rabil aalamiin. ñoo ngi leen di gën a sant sunu borom. ñoo ngi leen di gën a sant sunu borom. moom mi nu booleeg sëriñ bi. moom mi nu booleeg sëriñ bi. di leen gën a sant sëriñ bi. di leen gën a sant sëriñ bi. moom moom mii suñu lépp tey ak ëllëg. moom mii sunu lépp tey ak ëllëg. doog wàcc si nag di leen sant. doog a wàcc si nag di leen sant. di leen gërëm bu baax a baax. di leen sant ci di leen gërëm bu baax a baax. taxawaay bi rëy na lool. taxawaay bi rëy na lool. mat na sëkk. mat na sëkk. li ci gën a yéeme rek. li ci gën a yéeme rek. mooy yitte ji mooy yitte ji. jëf jii ngeen fi indi. ngeen fi yitteel gi leen yitteel ci jëf gi yitte gi leen yitteel ci jëf ji loolu mooy yéeme loolu mooy yéeme lool na ngeen ko xalaate na ngeen ko xalaate na ngeen ko ànde na ngeen ko ànde bokke bokke ko ni bokke ko ni ba ngeen dajale ko nii mu dajee ba ngeen dajale ko nii ngeen ko dajale yëmu leen ca. yëmu leen ca. ngeen yëkkati ko jëm jóg seen jëmmi bopp. ngeen yëkkati ko jëm seen jóg seen jëmmi bopp. yéene waale ñi nga xam ne ñoom xal yàlla dogalul ñu bokk bokk ci jataay bi. yéene waale te ñi nga xam ne yàlla dogalul xaj na ñu bokk ci jataay bi. ngeen bokk kook ñoom. ca ngeen bokk kook ñoom. loolu mooy yéeme. loolu mooy yéeme. jëf ji moom. jëf ji moom. su tawfeex ju leen suñ borom tawfeexal ci sëñ bi rekk la. tawfeex ju rëy ju leen suñ borom tawfeexal ci sëñ bi rek la. waaye jëf. waaye jëf. mu tàmbalee ci yéene. mi ngi tàmbalee ci yéene. bu ji dëggoo rek. bu yéene ji dëggoo rek. suñ borom fay fay borom dencal ko. suñ borom fay borom dencal ko. ba ko gën a soxla ba fam ko gën a soxlaa. bu jëf ji ñëwee nag. bu jëf ji ñëwee nag. suñ boroom da koy ful. suñ boroom daf koy ful. benn yiw bu ne. benn yiw bu ne. fukk la koy tàmbalee. fukk la koy tàmbalee. benn yiw boobu. benn yiw boobu. mën na koo def ba mu ay téeméer. mën na koo def ba muy ay téeméer. waaye mën na koo dooleet ay junni. waaye mën na koo dooleet nag ba muy ay junni. ci benn yiw rek. jëf ju jëf ju yiw nag. mi ngi tàmbalee ci yéene. mi ngi tàmbalee ci. yéene ci yéene. jëf ji mi ngi tàmbalee ci sarax. jëf ji mi ngi tàmbalee ci sarax. sarax lu rëy njariñ la. sarax lu rëy njariñ la. addiya topp ci. addiya topp ci. muy lu ëpp njariñ fuuf sarax. muy lu ëpp njariñ fuuf sarax. infaq rek muy dundale dundale dundale nag mooy dundale. na ko sang bu baax ba tàmbalee woon. na ko sang bu baax ba tàmbalee woon. infaq moom bala mooy jóg. infaq nag bala muy jóg. yitte dafa am. yitte dafa am. juñ mënta ñàkk faj ñàkk a faj. juñ mënta ñàkk faj. kon mbir mbir ñëw. kon mbir ñëw. ca booba. ca booba. sang bu baax ba. sang bu baax ba. joxe ndigal joxe ndigal. waaye kenn ku ne nag la nga mën. waaye kenn ku ne nag la nga mën. sidna Abu Bakar. si ubbi ko. sidna Abu Bakar ubbi ko. ni moom de la am lépp joxe na ko. ni moom la am lépp joxe na ko. ah bi tontu ko ne bi tontu ko ni ko. kon looy dese. kon looy dese. mu ne ko yàlla ak yonent bi lay dese. mu ne ko yàlla ak yonent bi lay dese. sidna Omar ca topp. sidna Omar moo ci topp. sidna Ousmane ca. sidna Abdourahman Awf topp ca. sidna Abdourahman Awf topp ca. ñoom ñëpp lañ ko àndaloon. ñoom ñëpp lañ ko àndaloon. ñoom ñooñee ko àndoon ak yont bi. ñoom ñooñee ko àndoon ak yont bi. ku ci ne. ku ci ne. la nga mën lépp def nga. ko. foofu nag kon la jëf yam foofu nag kon la jëf yem. yéeme na yéemaay goo xam ne seen jëf ji. yéeme na yéemaay goo xam ni seen jëf ji. te njariñ lay kenn mënu koo ab. te it njariñ la kenn mënu koo ab. yonent bi dafa wax ne. yonent bi dafa wax ni. na wattandiku sawara. na ngeen wattandiku sawara. donte xaritu tam tàndarma lay doon. donte xaritu tàndarma lay doon. xaritu tàndarma nag. xaritu tàndarma dafa naa ëppante nag seen jëf yi lool. dafa naa ëppante nag seen jëf yi lool. te la suñ borom ne na ngeen ragal yàlla. ca xarit tàndarma la suñ borom ne na ngeen ragal yàlla. donte xarit tàndarma donte xaritu tàndarma la. kon xaritu tàndarma. kon ko tolloolee seen jëf buñ ko tolloolee seen jëf ji. yaakaar naa ni. naa ni. suñ borom dafa moom lépp. suñ borom dafa moom lépp. te te daraam yemul fenn. te la yemul fenn. daraam loolu moo tax. loolu moo tax. ginnaaw xaritu tàndarma mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa musal nit ci safara ci safara. gannaaw xaritu tàndarma mën naa musal nit ci safara. kon yaakaar naa kon yaakaar seen seen seen jëf ji. kon yaakaar naa ni seen jëf ji. di seen liggéey bii di liggéey bii. ngeen di ko liggéeyal sëriñ bi. ngeen di ko liggéeyal sëriñ bi. bii tam nag. te sëriñ bi tamit nag. mënee su la xam fu mbiram yam diggante ma boromam. mënee su ta xam fu mbiram yam diggante ma boroomam kon liggéeyal ko. kon liggéeyal ko. barkeb liggéey bi. barkeb liggéey bi. kenn mënut a xam fu mu yem. kenn mënut fu mu yem. kon ngeen déggee ko noonu. kon ngeen déggee ko noonu. nu bokk sant yàlla bu baax a baax. nu bokk sant yàlla bu baax a baax. bi mu nu sëriñ bi. bi mu nu sëriñ bi. sëriñ faggul ñu fagguteef bu rëy bii mu nu faggul. sëriñ bi faggul ñu fagguteef bu rëy bii mu nu faggul. ci taw fee xam jure ci taw fee xam jure yi. sunu yombalal ñu ko lool. sunu borom yombalal ñu ko lool. waaye kon daanaka muy doon lu jomba am. waaye kon daanaka muy doon lu jombaam. ndax rëy gi. ndax rëy gi. ak njariñ lu rëy li ak njariñ lu rëy ak barke bu baawaan bi ak barke fii lay tàmbalee fii lay balaaxi rek kanu jëm kanu jëm. kon. kon. nanu gën a sant rek. nanu gën a sant rek. di gën a fedd li sunuy di gën a fedd li sunuy laxasaay. yéen dey mën bañ a wax dara ci lu xeetu nañ leen a bañ a wax dara ci xeetu lu niroog soññ. ndax suñ borom def bi mu leen defalee tawfeex ji. ndax suñ borom bi mu leen defalee tawfeex ji. moo leen kattanal. moo leen kattanal. ba ngeen mën a jëf jëf jëf ji. ba ngeen mën a jëf jëf ji. am na ci waxin yooyu. am na ci waxin yooyu. boo ko jëmee ci sëriñ bi. boo ko jëmee ci sëriñ bi. ak boromam ak boromam. du neex a wax du neex a wax. xajul ci xaju xajul ci ndax xajul ci ñun. waaye nag. waaye nag. nu nu koo fayee. waaye nu jéem koo fayee. sant sant ko. sant ko. cant gi nag. cant gi nag. kenn jàngalu leen ko. kenn jàngalu leen ko. xanaa sunu borom. sunu borom. mi ko def ci yéen mi ko def ci yéen. te moom moom mi nga xam ne mooy jëf. te moom mi nga xam ne mooy jëf. moo wax ne. moo wax ni. lu ngeen gën a ji lu ngeen gën a sant. lu ngeen gën a sant. ma gën a dolli. ma gën a dolli. kon la demee. kon noonu la demee. taxawaay bi yéeme na lool wax dëgg yàlla. taxawaay bi yéeme na lool wax dëgg yàlla. waaye sama borom mi ko def moom yéemu ko. waaye sama borom mi ko def moom yéemu ko. sëriñ bi mi tax mu def ko it. sëriñ bi mi tax mu def sëriñ bi tax mu def ko. moom it yéemu ko. moom it yéemu ko. ndax am na pay ca dana fay. ndax am nag pay ca dana fay. kon sant rek lan war def. kon sant rek lan war a def. tey soññ suñu bopp rek. tey soññ suñu bopp rek. bu la suñu borom joxee ngëneel. bu suñu borom joxee ngëneel. nga xam ko nga xam ko. ba sant ko ca. ba sant ko ca. dala koy dollil rek. dala koy dollil rek. ak lu mu ak lu mu rëy rëy rëy. yitte ji man moom laa yéem lool. yitte ji man moom laa yéem lool. waaye nag. waaye nag. ku xam ni mu demee. ku xam ni mu deme du la jaaxal du la jaaxal. suñ borom dafa wax ne. suñ borom dafa wax ni. jaam ñi nga xam ne. jaam ñi nga xam ni. da leen a fegal seen seen nayu bakkan. da leen a fegal seen nayu bakkan. seen nay seen nayu bakkan seen dafa nay. bakkan dafa nay. joxe yëfam. joxe yëfam. joxe yëfam. moo ko gënal joxe boppam. moo ko gënal joxe boppam. njabootu sëriñ bi sëriñ bi nag. sëriñ bi da leen a jiitu seen xol seen bopp. sëriñ bi da leen a jiitu ci seen xol ci seen bopp. maanaam nayu bakkan googu. maanaam nayu bakkan googu. dafa mel ni sëriñ bi la mu njëkk faggu. dafa mel ni sëriñ bi la mu njëkk a faggu. mooy dindi ko ci ñun. mooy dindi ko ci ñun. koo xam ne suñ borom musal na la ci nayu bakkan koo xam ne suñ borom musal na la ci nayu bakkan lam ca teg lam ca teg mu ni gaa texe yaa ngoogee mu gaa yu texe yaa waaye yooyu ñu fegal seen nayu bakkan waaye loolee ñu fegal ñu fegal fegal seen nayu bakkan gaa yooyee ñu fegal seen nayu bakkan gaa yu texe yaa ngoogee yu texe yaa ngoogee kon noonu rek la demee kon noonu rek la deme nayuk bakkan dafa lu la. nayuk dafa doon lu doy waar. ni ma ko junjee léegi. ni ma ko junjee léegi. na nit joxe yëfam. na nit joxe yëfam. moo ko gënal joxe boppam. moo ko gënal joxe boppam. murit nag. murit nag. dafa jëkk joxe boppam. dafa jëkk joxe boppam. doo ko joxe yëfam. loolu sunu borom mi nga xam ni. loolu sunu borom mi nga xam ni. moo tëlewul moo tëlewul dara. sëriñ bi mi nga xam ni. sëriñ bi mi nga xam ni. boolewul dara boromam. boolewul dara ak boromam. yaakaar naa ne looloo tax kon mu ko ci njabootam gi. yaakaar ne loolu moo tax mu def ko ci njabootam gi. dindi ko dindi ko ci ñoom. dindi ko ci ñoom. dindi ko ci ñoom. dindi ko ci ñoom. dindi nayuk bakkan ci seeni xol. dindi nayuk bakkan ci seeni xol. moo tax ñu mën a joxe seen bopp ba mu jeex tàkk. moo tax ñu mën a joxe seen bopp ba mu jeex joxe lañu am ba mu jeex tàkk. joxe lañu am ba mu jeex loolu yombul. waaye sëriñ bi nag pàggu téefam. waaye sëriñ bi nag pàggu téefam. diggam ak boromam. digganteem ak boromam. xel jotiwu ca. xel jotiwu ca. dañuy dox rek bàgg ca. dox rek bàgg ca. kon jërëgeen jëf kon jërëgeen jëf. mën nañ fee fanaan sax mën nañ fee fanaan sax. te ci laal dara te duñ ci laal dara. waaye ngeen xam bu baax ne. waaye ngeen xam bu baax ne. dalal seen xel bu baax. dalal seen xel bu baax. ci seen taxawaay ci seen taxawaay yii. fu ngeen fi mën a nekkee. ak fu ngeen fi mën a nekkee. muy ca bitim réew. muy ca bitim réew. muy ci biir réew mi. muy ci biir réew mi. muy ci seen biiri kër. muy ci seen biiri kër. muy ci seen biir muy ci seen biir ay mbooloo. muy ci seen biir ay mbooloo. fu ngeen fi mën a nekkee fu ngeen fi mën a nekkee rek. yéene jooju. yéene jooju. ak pësteef boobu ak pësteef boobu. ak yitte jooju ak yitte jooju. moo nekk ci yéen moo nekk ci yéen. moo tax nag. moo taxit nag. ngeen mën a dékku déggu ngeen sëriñ bi. moo tax nag ngeen mën a dékku pàgguteefu sëriñ bi. ginnaaw dañ leen a fàggul ba noppi. ginnaaw dañ leen fàggul ba noppi. fàggul leen taxawaay bi. fàggul leen taxawaay bi. muy jëf ji jëf ji. loolu moo tax. loolu moo tax. nii mu leen yombe nii mu leen yombe looloo tax mu yomb tax mu yomb leen. waaye daanaka. waaye daanaka. bu dul woon luñ teg suñu bët. bu dul woon luñ teg suñu bët. kon dañuy wax ne lii mustahil la mënta am. kon la lu mënta am. kon loolu la ñuy kon loolu rek lañuy wax. waaye suñu borom moom lu mu yombal mu yomb. waaye suñu borom moom lu mu yombal mu yomb. ndax mooy def mooy dindi. misaal diggante sëñ misaal diggante sëñ bi ak boromam. mënee su koo wax ci làmmiñ. mënee su wax ci làmmiñ. buñ ko doon jéem a wax ci làmmiñ. buñ ko doon jéem wax ci làmmiñ. dañuy wax ne sëriñ bi boolewul dara ak boromam. dañuy wax ne sëriñ bi boolewul dara ak boromam. waaye borom itam. waaye borom itam. baatub sëriñ bi jaral na ko ko. baatub sëriñ bi jaral na ko ko. dañ ko mënta ñàkk wax dañ ko mënta ñàkk a wax rek. ëpp na boobu waaye ëpp na boobu baat. ci seen diggante. kon nañ sant yàlla bu kon nañ sant yàlla bu baax. ca gën a góorgóorlu rek ca gën a góorgóorlu rek. daa diggante boobu rek. diggante boobu rek. la sëriñ bi defe woon. la sëriñ bi defe woon. na sëriñ bi na mu defe woon. na sëriñ bi defe woon. diggante bo diggante boromam ak yonent bi. diggante boromam ak yonent bi. mu nekk ci diggante bi. mu nekk ci diggante bi. loolu nañ jéem nañ jéem loolu nañ jéem loolu rek. yàlla moom nañu ba noppi. yàlla moom nañu ba noppi. bind nañu nu ñuy jaam. bind nañu nu ñuy jaam. waaye mu suñ tawfeex jure waaye suñ tawfeex jure yi. mu tax mu boole noog sëriñ bi. mu tax mu boole noog sëriñ bi. kon nan góorgóorlu bu kon nan góorgóorlu bu baax. di jaamu yàlla. di jaamu yàlla. di liggéeyal sëriñ bi. ndax moom ci diggante boobu rek la nekk. ndax nee moom ci diggante boobu rek la nekk. jaamu boromam. jaamu boromam. liggéeyal yonent bi kon nan góor góorgóorlu. kon nan góor jaamu gin ta bañ. jaamu gin sëñ ta bañ ñu dimbali nu. ñu dimbali nu. yombalal nu ko yombalal nu ko. ban ban nekk ca. ban nekk ca. ñu dimbaliwaat nu. ñu dimbaliwaat nu. ban ban mën a dekk diggante sëriñ boromam diggante sëriñ bi. di liggéeyal sëriñ bi. na mu ko defee digganteem ak boromam. na mu ko defee digganteem ma boromam. ak digganteem ak yonent bi. ñu yéene ko ni. ñu yéene ko ni. ñu jéeme ko ne suñ diggante suñ borom ak suñ diggante ak sëriñ bi nañ nekk foofu nañ nekk foofu te sax fi dakk te sax fi dakk wax jooju nag dafay darul neex a dégg wax jooju nag darul neex a dégg waaye jaamu yàlla moom dañ koo sëñ te bañ waaye jaamu yàlla moom dañ koo sëñ bañ danoo bind ñu di jaam danoo bind ñu di jaam mu indi ñu fi ñu war koo jaamu mu indi ñu fi koo jaamu loolu moom wax ju gàtt la waaye nag suñu sëriñ bi. waaye suñu digganteeg sëriñ bi. daf noo doy sëkk. daf noo doy sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg ak ëllëg. moo tax sëriñ bi nag. moo tax sëriñ bi nag. mënuñu koo liggéeyal sax mënuñu koo liggéeyal sax. nga xam ne mënunoo jaamu yàlla ndax màggam nga. na nga xam ne mënu mënunoo jaamu yàlla ndax màggam nga. na nga xam ne mënuñoo jaamu yàlla ndax màggam nga. waaye sëriñ bi it mënuñu koo liggéeyal. waaye sëriñ bi it koo liggéeyal. lañ koy lañ cay jéem rek. lañ cay jéem rek. di jaamu sunu borom. mooy di jaamu sunu borom. fas caa yéene fas fas ca yéene. fas ca yéene. mu defal nu ko. def sunu liggéey. mu defal nu ko sunu liggéey. sunu digganteeg sunu borom sunu loolu. noonu laa ko gisee. noonu laa ko gise sunu digganteeg sëriñ bi itam. sunu digganteeg sëriñ bi itam. gannaaw jaamu yàlla moo nu fi indi. gannaaw jaamu yàlla moo nu fi moo nu fi bay te yàlla defal nañu tawfeex ju ci moom. te yàlla defal nañu tawfeex ju rëy ci moom. ko tey ak ëllëg. ñu doyloo ko tey ak ëllëg. doyloo ko biir ak biti. doyloo ko biir ak biti. liggéey boobu ñu koy liggéeyal. liggéey boobu ñu koy liggéeyal. gannaaw buñ ko buñ ko ko dee liggéeyal ba noppi. gannaaw buñ ko ko dee liggéeyal ba noppi. na na na nañ ca fasaad. nañ ca fasaad. boole koog jaamu yàlla ga. boole koog jaamu yàlla ga. ko suñu borom. ko suñu borom. ndax ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. bëggul dara lu dul boromam. soxlawul dara boromam soxlawul dara lu boromam. wutiwul dara lu boromam wutiwul dara lu boromam. kon noonu lan ko mën a sante dañ koy nekkal ci ni ko bëggee. dañ koy nekkal ci ni ko bëggee. jaamu yàlla suñu kem kattan. yàlla suñu kem kattan. fabaat suñu lépp. fabaat joxaat ko ko joxaat ko ko. di ko ko ko ko liggéeyal. maanaam. maanaam. dañuy fab suñu lépp rek. dañuy fab suñu lépp rek. delloo ko sëriñ bi delloo ko sëriñ bi. ndax moom. ndax moom. ma nga fa boroomam. ma nga fa boroomam. te du fa jóg. te du fa jóg. kon nag. kon nag nanu góorgóorlu bu baax. sax ci jaamu yàlla. sax ci liggéeyal sëriñ bi. sax ci liggéeyal sëriñ bi. sunu kem kattan sunu kem kattan. Euh, jaamu jaamu yàlla bu ne dib jullit. yàlla bu ne dib jullit. jublu sa bu dee dëgg ci yow. jublu sa borom bu dee dëgg ci yow. dalay gàttandul boppam dalay gàttandul boppam. waaye nag rawatina ca. waaye nag rawatina ca. jaamu bu yàlla. jaamu bu yàlla. buy nitu Serigne Touba. buy nitu Serigne Touba. kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen di sant bu baax a baax. ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. xol sedd na ci yéen guy. sunu xol sedd na ci yéen guy. ngir Serigne Touba. ngir sëriñ Touba. sunu xel dal na féex. sunu xel dal na féex. ci yéen ci yéen. ngir sëriñ Touba. noo ngi leen di wétali ko itam ngi leen di wétali ko tamit. gannaaw ban saxee ci di leen bëggee. gannaaw ban saxee ci di leen bëggee. yéenay sunu mbëgg. yéenay sunu mbëgg. yéen la ñuy wétali ko yéen la ñuy wétali ko. yéen la ñuy damoo itam. yéen la ñuy damoo tam. kon jërëgeen jëf kon jëf. du lu ma mën a wax ci làmmiñ. du lu ma mën a wax ci làmmiñ. waaye sunu borom mi ma gën a xam sama. waaye sunu borom mi ma gën a xam sama bopp. kon xam kon kon dama koy bàyyee li ci des. kon dama koy bàyyee li ci des. di ñaan bu baax. di ñaan bu baax. war a jëkk nangu leen jëf suñu borom nangu leen jëf ji lañ waroon njëkk ñaan mooy suñu borom nangu leen jëf ji sëriñ bi nangu leen liggéey sëriñ bi nangu leen liggéey bi suñu borom di leen dolli faw tawféex ji mu leen jox ci sëriñ bi suñu borom di leen dolli dolli faw tawféex ji leen jox ci sëriñ bi sëriñ bi leen ak ngërëmam sëriñ beet gàttandoo leen ak ngërëmam loolu la ñuy jëkk ñaan la ñuy jëkk a ñaan lépp suñu xel dal na ci bu baax am nañ ci yaqiin ñaan ko ko ci suñuy waaye ñaan ko jëlee ko ci suñuy xol wax ko ci suñuy làmmiñ dañ ko mënta ñàkk a def dañ ko mënta ñàkk def gannaaw ñaan googu gannaaw ñaan googu ñaan suñu borom sàmm leen noo ngi ñaan suñu borom sàmm leen ci bépp safaan aar leen aar leen sàmm leen njaboot gi yëpp sàmm leen njaboot gi yëpp bàyyi leen fii nag lu yàgg. leen feet nag lu yàgg. ginnaaw fii ginnaaw jaar di rek. ginnaaw dañ fiy jaar di wéy rek. ñoo ngi ñaan suñu borom ginnaaw ba te aar leen. ñoo ngi ñaan suñu borom ginnaaw bi mu leen sàmmee ca aar leen. bàyyi leen fi lu yàgg. bàyyi leen fi du yàgg. yàgg goo xam day ànd yàgg goo xam day ànd ak wér. ànd ak kattan. ànd kattan. ba ngeen gën a mën a ci liggéey ba ngeen gën a mën a sax ci seen liggéey bi gën cee gën a mën a jéeme seen yéene. ban cee gën a mën a yi àggale seen yéene. loolu mooy ñaan loolu mooy ñaani yi. la ca dolli ku rek. la ca dolli ku rek. kenn ku nekk ci yéen. kenn ku nekk ci yéen. xam na boppam. xam na boppam. xam na lam bëgg. xam na lam bëgg. waaye lu mu ko xam-xam. waaye lu ko xam-xam. sunu moo ko gën a xam. sunu borom moo ko gën a xam moom mi ko def ci moom. kon ñoo ngi ñaan kenn ku ñaan kenn ku nekk ci yéen. lam bëgg ci boppam lam bëgg ci boppam. suñ borom defal ko suñ borom defal ko ko. ci baaxu Serigne Touba ci baaxu Serigne Touba. ngëneelal Serigne Touba ci ngëneelal Serigne Touba. ci daraje Serigne Touba ci daraje Serigne ci barkeb sëriñ Touba ci barkeb Serigne Touba. noo ngi ñaan loolu. noo ngi ñaan loolu bu baax a baax. suñ borom fajal leen seen aajo yëpp. suñ borom fajal leen seen aajo mënees na wax ak moom waaye nit sëñ Tuubaa jaral na ko ko. mënees na wax ak moom waaye nit sëñ Tuubaa jaral na ko. noonu lañ ko mën a leerale. noonu ko mën a leerale. noonu a leerale. kon nag jërë ngeen jëf. jërë jërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax a baax. yàlla na fi yàgg ci wér. amiin amiin yàlla na fi yàgg ci wér amiin amiin amiin yàgg ci wér amiin amiin